ma daal man xam naa xale yi man jaaxal nañ ma léegi maam Ndiaye waa naa ko sama rakk la lu mu wax baal naa ko. ok man damay jaay tey ci gàmmu gi laa ne pour ma gàmmu laa ne itam génn leen ci lii. man maa ngi jaay fi mel wax dëgg j'ai pas le temps je cherche que des brodés et des cotonnades et des lafaya ngeen wax waxi dof waxi dof lu tax ngeen mën waxi dof ah ñoo xam ne ñu dugg tiktok jàmbur di wax waxi dof xoolee finition brodé bi. xool leen finition robe bi dëgg neexul waaye Omzo mi ne woon da koy jënd laata léegi jékki-jékki nañ gisatuñu Omzo ah. dañuy umbal laay bi dañuy neexal loolu di daawoo. ku bëgg a gàmmu ji sama robe dafa jonga ma xool leen côté bi fees dellu na robe day fees day tuuru dëgg neexul. dafa rafet de robe bi ah amul couleur bi keroog ma jëlee sër rek ñu ne ñu ne ma. gis nga ak maam Ndiaye. maam Ndiaye ma jaay barki dem moo Ndiaye compensé yu rose yu ma waaw da bëgg leen jàmm génn leen ci li ngeen ne waaw ah. dama leen bloqué fii laa leen di bàyyi allo. jot nga kàddu waay yéen nga naa mën a